bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullaahi wa barakaatu eh, ñi ngi nuyu mbokk yëpp yi nekk ci eh, àddina bi yëpp tàmbaleeku ci sunu réew wax nga dëgg mooy jéem a amoon na sax kàddu yuñ ci sànni woon ci ba muy soog a tàmbali am na itamit kii nga xam ne mooy sëñ Mubaarak loo waxoon nañ ko itam mu sànni ay kàddu ci sunu tur waaye dafa mel ne mbir mi moom bu doon bës bu set nga wax ci sax bu la ko yàlla maye nga tane ñi nga xam ne ñoo tëdd war na nga di ko def ngir euh, euh, man leen a euh, gën a gën a gën a gën a bàyyi ñu xam ne bàyyi nañ leen xel mm, ci li nga xam ne dafa dëj àdduna bi kon ginnaaw bu ñu yooyu ñëpp tàmbale ko ñu sunu réew ci eh, di ñaanal mboolem ñi nga xam ne mbir mi mi ngi ci daf leen a laal yàlla may leen wér eh, ñi nga xam ne tamit laalu leen yàlla musal leen ci te yàlla yamale ko fi loolu ñu ngi koy ñaan ci tàmbale ci sunu réew wante tamit ñu ngi koy ñaan tamit ci àddina bi yëpp ndax àddina bi yëpp benn bi rek la ndax eh, yàlla kenn ki la te lu bind nuy nit kon bu fekkente ne dafa am loo xam ne ci nit la ñëw kon mboo ko dee ñaan man nga koo ñaanale ndax moo ko wax euh, inna xalaqnaakum na ko wa unsa wa jaalnaakum shaaban wa xabail li taaraf dafa mel na nit ñi ni ñu xàjjali ko ay famille ay giir ay xeet ay ndàngam lépp moom nee na moo ko def ngir bëgg ñuy ñu ñu kenn ku ne xam kenn ku ne xam googu sax manees na wax na ñuy duggante kon réew moo dem rek da nga fa fekk ñu bokkul ci réew ma Euh, kon mu mel ne kon bu amee loo xam ne ñëpp la dugg kon ñu ñaan yàlla ci ci ci mbaaxam ak ci yërmande mu yërëm doomu aadama euh, dëgg la mm, moom lépp loo xam ne dal na doomu aadama wala mu ngi ci euh, wax na ko nit ci anam gu ne wax na ko ko nit wax na ko te danaa leen bàyyi nag waaye Euh, danaay def loo xam ne dama leen ci nattu euh, même ñi nga xam ne sax dañ koo gëm nga xam ne ñoom moo ñoo war a gën a mën a noppalu ndax boo xasee gëm yàlla lu ñëw rek da ko cay daal di bàyyi xel bu ko defee mu wan ne kon da am nga foo wéeru tuuti am nga foo wéeru kon fu am solo ndax ki nga xam ne moom gis-gisam du du teere ci yàlla day sonn waaye ki nga xam ne nag moom am na ca ngëm ngëm nag day loo jafe loo xam ne loo ca am rek nga xam ne loolu sa xel nekk rek sa xel dem ci moom kooku mel na ne am nga wéeruwaay boo xam ne lu am nga foo mën a dalale sa xel ñooñu sax daf leen ne ahasiba nas an yutraku an yaqulu amanna ah, wa hum laa yuftanuun même bu fekkente ne gëm nga googu sax ba defe na yaa ci ne nee na du tax mu bàyyi la dana la fitnaal wala ya'laman allahu alladina sadaqu wala ya'laman alkathibin même bi ci gëm googu moom xam na waaye teewul muy mu ne dana la nattu yow mi ko gëm ngir xam ba xam gëm nga dëgg la wala du dëgg kon nag ki ko gëmul nga xam na ndegam am na ndax ñoom dañuy wax toujours ci suñuy gisiin yàlla moom dana naqaree bañ a euh, bañ réer nag am na ndax moo ko wax wante ak lu mën a xew ki nga xam ne moom mbiram lu mu ci dal da koy xool fu mu ko teg fu dul ci moom kooku moom it mu gën a moo gën a sonn kon dafa mel na nun li nu war a gën a amal solo moo ñaan yàlla lim nu digal nu di ko def li li nu tere nu di ko bàyyi tey ñaan te di ko ñaanit nag te lépp lu mu nu tegit ñu jàpp na ca loola rek la bokk ñu jéem ko waaye nag bu ca bokkee tamit ñu ñaan ko mu dind ko waaye nag su ko dindee su ko koy ñaan mu di ko dindi tamit nañ ci boole bàyyi xel ne wax na ne nit ki su fekkente ne am na lu ko lor wa ida masa naasu durun daa rabbahu muniban ilay tuma ida xawalloo ni amatan minu nasiya ma kana yadoo ilay min qablu wa jaala lillahi andadan maanaam bu fekkente ne nit dafa am lor ju ko jàpp tey ki gëm nga xam ne ma ngi ko wéer ci yàlla waaye nee na même kooku sax su ma ko tegee loo xam ne xam na ne ci man la jógee euh, dafa may daal di ñaan taxawuma nga gis ko fi mu defee jamono ji toll ñaan leen yàlla jàng leen lu ne ñu dugg ci waaye nee na loolu bu ma ko dindee bu ma ko dindee ba noppi nit ki day mel na du woon moom di delluwaat ci lim na woon loolu nag yàlla bu mu dal nan ko ñaan jaamu ko parce que moo nu ko digal. jaamu gi du ca génne da nga koy def parce que di ci daw lor wala di ci daw dara danga ko war a def parce que yàlla moo na ko digal te moo nu moom kon amul lu muy lu mu muy expliquer waaye bu fekkente ne def nga ko ba noppi tamit ba may la bul delluwaat nag ci la la nga nekkoon kooku tamit dafa bokk ci sartum ñaan boo ñaanee ba noppi yàlla may la fexeel ba ca delluwaat ki xam ne nag moom ci boppam la nekk waxtu bu ne ñu baax jàpp na loolu tamit ñi nga xam ne ñoom gëm nañu te itam bu ñu defee ne mucc nañ ci ndaxte loolu euh, wa taqu fitnatan laa tusiibanna alladhiina zalamu xaw xaassa ñi nga xam ne dañoo nekk ci lu ñu warul nekk ba xëy na fitna am yàlla di leen ca nattu buñ bu ñu buñ jafe ne ñoom taxuñu ñuy wax buñ defee ne dañ ciy mucc ndax bu ñëwee lépp lay maasale kon dafa mel ne delluwaat ci yàlla delluwaat sax dafa diis ndax jóge ca bay delluwaat sax mën naa ñàkk waaye nag bu fekkente ne euh, euh, seytaane mën na la wala nga nga nga nga sàggan ba wone ne da nga da nga da nga faa jóge kon bu la yàlla dimbalee ba nga da ca delluwaat it na nga na nga jàpp ne nag dellu boobu da ko war a sàmm ba mu dëgër ba nga xam ne doo dem ba ci biir nga wëlbati ko waatati euh, loolu kon ñu jàpp ne kon. Mm, loolu fi lañ toll euh, àddina itam lépp sunu borom wax na ko ak yonent bi sallallahu sëñ Tuubaa tamit bi mu ñëwee ak nit ñu baax ñi kenn ku ne euh, leeral nga la nga xam ne moo moom moom nga jàpp ne sa ña nga nekkal war naa lëndam ci moom ndax yonent bi sallallahu bàyyiwul dara mais ñëw ñu ko xam ne ñoo jàpp ba am ci cër sëñ Tuubaa mel ne sëriñ Tuubaa ak ñi nga xam ne ay nit ñu baax lañu kenn ku ci nekkee ne ba nga ñëwee dangaa ngaa leeral loolu gën koo dëdd gën koo gën koo gën wax ñi nga xam ne tolloon nañu ak yow tolloon nañu tollu nga jamono joo xam mën ngaa wax ak ñoom ñu dégg la euh, moo tax muy waxoon toujours ni àdduna nit ki dafa mel ne euh, euh, innama masalu xayaati dunya kamaayin anzalnaahu mina samaa'i faxtalata maanaam dafa mel ne as ndox mu jóge ci asamaan def kenn du du du ndox ndox rek lay doon mais bu ñëwee ci suuf da ngay gis bii nabatul ardi mimmaa yaakulu naasu wal am maanaam bu ñëwee ba ci suuf day sax ay gàncax yu wuute lii nit mën na koo lekk li jur rek koy lekk kon lépp ci benn place bu lay jógee mais moom moo ko defee noonu ku nekk la nga ca soxla nga di ko jëf wante nag nee na xata ida axadat al ardu zuxrafa wa dayanat wa danna ahluha annahum xaadiruna alayha ata amruna laylan aw naharan fa jaalna xasidan suñ demee nag ba naagu ni àddina bi demee technologie bi science lépp avancé ba nit di defar ay bomb bomb def ay lu ne ci àdduna nit di ko def lu mën a lor ba defe ne dara tëwu ko nee na su demee ba booba soo ko neexee mu xëy maasale ko maasale ko mu mel ne lu amul woon loolu it boo ko dee jàngat ci biir jamono jii nu toll day yomb day day day niroo ndax fii ñu tollu wopp ji nga xam ne moo xëy xëy daj àdduna gaaw lool te kenn xamul fu muy tàmbalee ak fu mu yem ak fu mu mënoo koo gis fenn mënoo koo xool fenn euh, te itam ñi nga xam ne yàlla may na leen xam-xam ci gëstu ñu mën a dawal avion defal ay bateau defal lu nekk ci àdduna ba jàpp dara tawtu leen yàlla indi loo xam ne rek fu ne ñu fay dugg ngir xam ca dara kon li wax ne su ko neexoon tey mu maasale lépp loolu dafa wane rek ne euh, nit ki fii jamono ji toll nga gis li àddina bi demee xeex yi rey yi ay nit ñu am alal ju dul jeex am ñu ñàkk xiif ngay rey ña ca des sa ak sa ngir rek sa mbew de ak sa kii mais yàlla mi ngi fi kon loolu lépp dafay wane ne rek ni euh, ku ci ku seetlu rek te lii nag lii ñu may lii tamit du tey ba àddina sosoo ba léegi mi ngi fi wax naa ko ci kam na boobu ma nga tàmbalee ca noox ma nga tàmbalee ca nangam yónnante bu ma sa ñëw rek bu ñu la doon détaillé par benn yónnante bu ñëw ak la ca feeñ da xam ne lii sax du dara waaw kon yàlla mës sa dañ ci loolu mais saa bu ñëwee rek nit ña ne ah lii bu jeexee kon nag mu indeeti loo xam ne xamuñu yàlla na yàlla jeexal ko euh, te te te te te mu te mu te jé te jéggal ñi yërëm leen yërëm ne moom nee na ku ne xaj nga ci jéggal nag koo jéggalul amoo ci amul mënu mënu ci xool beneen affaire la waaye nag yërëm ne wasi'at kulla shay'in ay yërmande moom ñëpp ci xaj parce que noonu la doomu aadama di doxe xam ki ko jaamu ak ki ko jaamoo te ki ko gëmoo ki ko gëmul yërmandeem ci doomu aadama moom mun moom def na ko euh, bu ko defee lu mel noonu mooy tax ñuy ñuy ñu di ko ñu di ci dolli ñëpp nag di ci di ci gën a nag euh, bàyyi xel ak di ci di ci di ci di ci di ci euh, ki nga xam ne ñoo nekk ci bitim réew nga xam ne mm, euh, tey jafe na lool ndax biti réew bi dafa metti ci ñi nga xam ne dañ faa nekk kese ànd ak seen sago ànd ak seen wér ndax danga nekk ci réewum jàmbur bëgg fa am loolu ay jariñ te dëkkoo fa bu boog bu wootee ak ñoom ci melo su ñi nga xam ne mooy ñu jóge ci suñu réew yi bokkook ñoom ay wax bokkook ñoom sax la ci ëpp bokkook ñoom ak diine mën naa am sax xeebeel am seen diggante loolu lépp nga jël ko nekk ko ci am réew mu doy sëkk aw metit mm, euh, kon kooku dafa dafa metti la ca des mooy ba fekkee nga nekk ci lool nag ba noppi leneen ñëw nag tegu ca loo xam ne waa réew ma ci boppam sax ñoom tëlatuñu kenn kon mu mel ne kon day ñaari métit ñaari métit yooyu nag kon ñu ngi leen ci leen ci um, ndokk sax kii bu baax a baax a baax di leen masawu di xam ne euh, lay ñu loolu foofu ñu nekk ak la leen fa yóbbu euh, ñun xam nañu ci dara xam nañ ni fàttewuñ ko ndax alxur diine la alam takun ardullahi waasi'atan fatahaajiru fa kon kon immigration diine la te itam boo ko defee diine la maanaam loo xam ne lu yàlla digle la wante boo ko defee ba noppi tamit yàlla def la ca leneen muy waman yuhaajir fi sabiil waman yaxruj min bayti muhaajiran ilallaahi wa rasuulihi summa yudrikhu al-mawtu faqad waqa'a ajruhu alallaahi maanaam ki nga xam ne dafa def loolu immigration lu baax rek tax mu def te ñu xam nañ na looloo leen ci yëkkati ndax gis nañu ndax li taxam ñu di leen ci gën a massawu lim li nekk lépp ci àll bi ci liñ ci xam ñun mel na ni fàttewuñu seen tey ak seen ëllëg waaw te loolu yombul maanaam di bàyyi sa xel sa àdduna di bàyyi sa xel sa àllaaxira te loolu moo am ci biti euh, saa boo leen fekkee da ngay mujj sax yow nga nga bëgg a gën a gën a laxasaayuwaat ndax nit koo xam ne situation ya mu nekkee metti na ci wàllu jëf nam fa nekkee waaye taxul mu fàtte yàlla waxtu wu ne ñu ngay def seen i jàng ñu ngay def seen i alxuraan ñu ngay def seen i daara muy kër yooyu nga xam ne sëñ Murtala ko digle woon ci biti xam ne waxtu wu ne ñu ngay fa daj waxtu wu ne ñu ngi ci da dangay lay da ngay naan mais ñi est sax ñu ngi liggéey ndax seen lépp ñu soxlaal ko ci mbirum diine kooku kon fàttewul fàttewul ëllëgam ku mel noonu kon mu jafe-jafe ñetti jafe-jafe yooyu yëpp nekk ci moom la muy war a la ko fa yóbbu mënugu caa am lum jariñoo lu ko doy bëgg caa boole bëgg fàttaliku ëllëgam bëgg caa boole tamit ñamu nekkal bokkut ak ñoom dara ci lenn anam mais kon daanaka loolu mooy mooy mooy moo moo moo moo nekk ci diine nekk di xeex ci diine ñooyam kon ñu ngi leen ci ñaanal yàlla sàmm leen yàlla sàmm leen ndaxte yëg nañ tax ñu fa faatu muy ñi nga xam ne ñoo nekk itali ak ñu nekk Espagne ak ñu nekk ay ay ay ay États-Unis d'Amérique ak ñi nga xam ne tamit euh, ñu ngi nekk ci mboolem pays Europe Belgique ak xëy na lim gi waaye fépp fu nit nekk ci Europe rawatina nag waa Italie nga xam ne métti na lool métti na fa lool ak Espagne ak états gi nga xam ne tàmbali na ko euh, ndaxte euh, mu metti lool. te ñooñu gox bi nga xam ne sax surtout moom la gën a méttee moom la fa sunu mbokk yi gën a bari te lañ fa nekk woon lépp mooy nekk ci lu baax di def nekk ci lañ seen diine euh, loolu tamit yëg nañ ne sax am na ñu ci am am ñu ngi ñu ngi ñu ngi di woote di sant waaye dama leen di wax ne loolu sax jaru ko di woot di wax naan nun laalagunu bu leen ko sax bu leen sori loolu ndaxte euh, sunu réew yi wax dafee bari ndax euh, danaa ci dellu sax ndaxte bu fekkente ne da ngeen nekk foofu yàlla musal leen ci sant leen ko rek te jàmm ko te ña nga xam ne ñoo fa nekk te te mu nekk ci réew ma moom ko yàlla di leen natt di ngeen won leen ne leen tiis bi yéen yéen a ko bokk ndax jaax na comme choban wax bàyyi la am na ñoo xam ne ay italien ñu ngi fii ci biir Sénégal wala ay wala ay américain wala nangam ñu ngi fi kon nun tamit bu ñu demee foofa lu fa nekk ci musiba noog ñoom ñoo ko bokk kon bu fekkee am na ñu fa yàlla moom am na ñoo xam ne ci ñoom la nekkul ci ñoom nañu ñaan yàlla sant ko yi tamit nag te bañ a naagu lépp lu ñu leen di sant ci la ñu war a def ci moytandiku nañ koy def di ñaan yàlla it nag te ña fa nekkit nag bokk di di réew ma tamit waxtu wu ne bu ñu leen won ne nun kat lii yëgunu ko lii nun amul ci ñu loolu dees ko wax dees ko wax ci wàllu nit ak nit sax wante dees ko wax sax ci mbirum yàlla ndax yàlla moom itam lu ko neex moo koy def kon nañ gën a rafetal diggante boobu ba ku ngeen ci gis ba loolu sax tax na ñun ñii ñu ngi am ñuy jokk lool ci waa kilifa yi pour di ko di ko di ko di ko di ko di ko dugal noonu bu ko defee euh, loolu moo moo tax moo tax ñu di leen ci ñu di leen ci ñu di leen ci gën a gën a ñaax hmm, bu ko defee euh, la ca desit mooy hmm, li ñuy tudde wasila wasila taqula wa tawa ilay wasila maanaam fi nga xam ne dangay jàpp ne moo dox sa diggante ak yàlla parce que yàlla dafa dafa dafa tuutiwul dafa rëy euh, mosul defal nit mos sa mën na nakkoor ak nit di ko def ak moom direct yabal na ay yonentam ñu nekk nit nit deful deful leen sax ñu wooteeg nit ñi dañoo nekk yore tànk yore nopp yore nàngam di wax kon lépp rek bëgg na nit mën a wax ak kamu kam tollool waaye bu la nit sutee di la wax kooku dootu nekk léegi ordre lay doon waaw mais ki nekk a waxtaan lay doon waaw yonent yi loolu lañ leen santoon bu leen bu leen bu leen bu leen forcé kenn bu leen nangam nangam nit ñu baax ñi tamit bi ñëwee foofu la foofu lañ jaar sëñ Tuubaa gis ngeen ko bi fi nekkee gis nga ko sax ñi ko toog te toog doon toxal sonal mooy noon yi eh, mosul leen a wax lu jëm ci violence wala mu wax leen ci loo xam ne da leen di wan ne leen li ngeen may def mën naa ci déedéet du loolu kon lim lim mooy tax nit ki bu demee bay gëm mu ànd ak sagoom ndaxte gëm dafa nekk loo xam ne boo gisee islaam xawoon na am jafe-jafe ci ba ci commencement ba xeex yi ak guerre yi ñuy def naan jihaad ak baat yooyu mais euh, euh, euh, ak ak naafiq am lu ne am mooy force soo ko dugalee nit ci affaire ngëm mën na leen d'accord naa gëm na mais gëm ci biir nit ki lay nekk waaw fekk mënoo dindi nit ki la ca biiram te loolu nit du ko mën a def mënoon na ko def nga ko wala defuloo ko moo tax diine dafa daan wax ne laa ikraha fi diin qad tabayyana rushdu mina a ghayy maanaam lu baax a ngi ne lu bon a ngi nii kon bul forcer nit ci nga defloo ko ci biiram loo xam ne mënu ko caa def loolu moo tax euh, li ñu daan forcer li ñu daan forcer ci lu bare bare bare naa fekk ca la am naa fekk ñëw gën a garaaw sax ci weddi ndax mooy ki nga xam ne daf lay won ne maag yow a ànd te àndut ak yow kooku mën na laa fexeel te am pexeem ñaare dana dana néew loo loo ci lu ci nit mën a mucc ndax daf lay jekku bu ko defee nag euh, lu mel noonu nag moom la nit ñu baax ñi yonent yi doon doxe sëñ tubaa mi ñëw di doxe noonu moo tax toujours damay wax ne euh, nit ñi nañu def attention ci ci yenn wax yi waaw sëñ tubaa bu ko kenn dóor ci kaw yàlla waaw di sëñ Tuubaa bëggul loolu waaw ndaxte euh, nit koo xam ne dem na ba wax ne nafsi si diini tuma ahli wal walad wa maskani lakk wa diyaatun abad cest à sama lépp jox naa la ko yàlla même boo gisee sax yi muy bind ci wàllu wàllu ñaan lu mel ne masalabul fawzeyni boo ko xoolee lu wax na ko ci wa maskani nangam nangam wan fil bala nu mu tuddati wala waba wan fil waba wal balaaya kullaha yooyu euh, nga gis ne kon même lu mu ci wax bu demee ba ca mujj ga def ne faqat daawatu ko fa ajib daawati maanaam def ne yàlla ñaan naa la nangu ko parce que yaa wax ne ku ñaan may la nga xam ne bëgg na rek bëgg bëgg a décharger wu ci bañ ne maane nangam wala léy am ndax ragal boromam loolu yëpp daf koy invité ci ay waxam bu ko defee yow mi ne xamoo ci dara jàng tuuti jàng benn pëj wax tël tël sëñ Tuubaa nangam nee na woon fii dara te yow xooloo fa mu tàmbalee fa mu wax ak li mu ñaan boroomam mais yemal foofu boo ci yemee kay amul problème ndaxte alxuraan dafay wax ne nit ñi euh, euh, euh, boo bañee wala tasubbu lazina yad'uuna min doon llaahi fa yasubbu llaaha adwan bi ghayri ilmin kazaalika zayyana li kulli ummatin amalahum def ne nit kii nga xam ne dafa am lu muy gisee yow la nga gisee nga jëmale ko ci yàlla moom jëmale ko ci yàlla wala moo xam fa mu jëmale ak fa nga jëmale mais yow daal jàpp nga ne li nga li nga gis neen la mu ne boo ko boo ko boo ko boo ko doyadelee la mu ne mais dalay doyadel li nga nekk te la nga nekk bu fekkente ne lu dëgg la mu doyadil la ko kon lor nga ko parce que lor lor nga ko mu tax wax loo xam ne bari nañuy wax ci sëñ tubaa loo xam ne mais du ñoom sëñ Touba sëñ Touba du kenn duñu ko bañ parce que sëñ Touba nit ku bëgg yàlla <laughs> mënoo loo ko bañ mais ka cay wax te waru caa wax taxamu xamu ca da ca génne boppam da ca waxaale yëfi boppam kooku moo indi problème bi boo yemee fi mu yem ñaan na lii yàlla na ko na moo xam yemal ca la wax ñaan na ko boo amee sa bopp te nag lu ci bari dañ dul xool ni muy waxee problème bi daf ci am jégg teel rek di matt ga dam na mel sëñ Tuubaa kenn mënu ko gën koo dégg arab waaw xam na balaaxa xam xam xam aroot xam mantiq xam bayaat xam na lu ne ci waxin donc bu kenn du ko sërxal ci wax mais yow mi ko jàng nag boo jàngul lu bari xamoo ci dara dégg ñu wër la rek ne la jaafe man yàlla bu ñu lay jox sax as tuut nga daal di defe na yow fi mu ne jeex na boroom xam-xam nga mais conférence sax du lu yëf caaxaan conférence boroom xam-xam moo koy def mais waaraate nag boo ko dee defee da ngay dajale ay yëf di ko ca def loolee nag boo ko dee dajale te seetal yi nga xam wala nga xam fa nga ci mën a yem waaye kuñ ci taxaw wër la nga ne da def conférence da ngay dugg fii wax loo xam ne du sax conférence parce que conférence du loolu conférence borom xam-xam a koy def te da koy def ci ay ay ay ay règle ay norme bu ko defee loolu lépp nañ ci bàyyi bàyyi xel euh, bu ko defee yéen ñi ci bitti tamit ngeen muñ ngeen muñ ni noo ngi fii lu ngeen am ci métti rek am nan ko parce que noo ko yéen noo ngi fii ci suñu dëkk bii ñu itam ni ngi ci yooyu yàlla na ci yàlla musal waaye yéen yàlla na ci yàlla musal su musal ci it waa réew ma seen diggante yi tamit foofu xam nañ ne am na jafe-jafe am ndax am nañ ñoo xam ne seenu liggéey amul woon solo dañ doon xëy di jaay comme niñ koy waxee rek bés bu set la ñuy am fa lañ koy amee buñ toogee mënuñoo toog mukk fukki fan nangam wala ñaari fan ñett te fekk amul lu dugg ci ñoom te fekk lu ne loolu nekkul eh, coono ci ñoom loolu kon yéen ñi nga xam ne da ngeen amoon ay liggéey hmm, euh, euh, na ngeen ak ak ak ñi ko amul yëpp te tanente na ngeen organiser wu fexe ba li ngeen daan def seeni daayira ak yëpp ndax sa daayira def naa euh, taawoon rek la alal birri wa taqwa maanaam dimbalante moo ko tax a jóg xëy na lu jarax rax leneen la waaye loolu moo ko tax a jóg kon loolu nga xam ne yéen ñëpp da ngeen ko daan jéema am di ci defante lu baax di ci nangam lu ngeen ci am dimbale leen ko ñu nekk foofu ci seen dëkk yooyu moo xam Amérique la moo xam Italie la moo xam Espagne la moo xam Belgique la wala France fu man mën di doon ak al fu mu mën di doon ci dëkk yooyu na ngeen fexe ba am lu ngeen di am ko su néew ña fa nekk te nga xam ne bu ñu masaan xëy ñaari fan bu ñu amul ci du ñu am lu lekk ngeen fexe organiser wu di leen ca di leen ca di leen ca di leen ca dimbale bu ko defee loolu soo amee rek. loolu mën naa am li ci des nag ñi nga xam ne ñoo fa yàlla def ñu fa wàññi ko fa ah, na ngeen ci na ngeen dal rek lu ci yàlla defal rek lu ngeen ko ndax yaakaar naa ne eh, kilifa yi buñ ci amee benn pexe danañ danañ ci danañ danañ ci danañ ci danañ ci danañ ci danañ ci jàpp eh, loolu daal mooy mooy mooy li nga xam ne jàpp nañ ne mooy ñu jéem a xool Euh, jéemam a muñ te bàyyi coow li ñaan euh, jaamu yàlla te def ko ngir yàlla ñaan nag ca ñaan ndax moom kooku tamit jullit daf koy war di def te itam dogu it nag ci ne euh, lépp lu nekkit mm, boo ëllëgee bu na yàlla dimbalewaatee tamit nu bañ a sàggan daal di fàtte na loolu kat amoon na daal di wëlbati ko te loolu lépp sunu borom dañu koo wax dinu ko junju te loolu sax dafa daanaka boo ko doon seet ci nit ak ni sax du ngor waaw ñaan nit doxal nit mu defal la boo ma defalee lii nga defal ko ko ba noppi mu bëtti ko lan lam la waxoon defu ko loolu du ngor sax te moo na euh, euh, dañuy wax ne mais euh, dañuy jàpp ne hmm, yàlla mooy yàlla kenn du moroom du moroomam du kenn waaye nag ak mbaadoola moom léeg-léeg nit fexe ba bañ koo seq kenn sax baaxul waaye seq kook yàlla it baaxul waaw waaw mu lu ne nga mën koo wax loo defe ne boo ko defee nii rek day de da ngay defee ne moom xamul la ngay def nga def ko boo ci bu dee nga kërëb kërëb bi def nangam boo noppee ci jaamu nga bu la defee la nga loolu mais sax ci nit yàlla dunoo digal ñu war ko jaamu amul damay wax toujours ne mm, fay gim ñu ci dugg sax moo moo moo moom la engagé parce que warul warul warul moo ko warul boppam mais ñun waruñu ko sax teg waruñu ci duggoon ndax moo nu bind. boo ko jaamoo moo lay moo lay may kàttan gi moo lay jox loxo moo lay jox tànk moo lay jox nangam mais kooku boo la naan danaa la ca fay yow itam nag bul bul baadoo la bàyyi ko rek bu ko defee baax na bu la ko deful nga tax waaye boo ko ci bëggee safañal <laughs> la bu ko defee yooyu yëpp nañ muy sëñ Touba mii tamit damay wax ne bu leen ko buñ ko dóor ci kaw yàlla neexu ko waaw ndax euh, boo gisee euh, alxuraan mas na ci. yàlla mas na ci waxante ak yonent yàlla Isa waaw daf ko ne a anta qulta linnaasi ittaxizuuni wa ummii ilaahayn ndax daf ko ne mais yow ndax da wax ne nit ñi nañ ma jaam maag sama yaay ñu ngeen te ba ba yàlla Isa tiit ne ko man mënumaay wax loolu ndax tas wax ca wax in kunta qultuhu faqad alimta ba ay ji daan kon yàlla xam na ne Isa wax ko mais daf ko doon seet nga xam ne sëñ Tuubaa daana def fii ci njaareem boo ma saan toog ba génn ci nit ñi di lee waxtaan ak ñoom nga gis ko jóg daanu daal di daanu daanu yàlla nanga wax mais buñ ko mësaan wax ba bëgg koo méngaleeg yàlla day jógal boppam du wax sax nit ñi jàpp leen ko déedéet moom mooy jógal boppam jàpp koo ko song ko daaneel ko ci suuf jël suuf dugal ci gi sax gémmiñ gi pour wan leen ni leen ñi bu leen ma booleeg yàlla bu leen ma jaxase parce que nit ñi boobatu ñu ràmbaajale ak yàlla capable nañ di tu waaw lu ne mën nañ ko ndax luñ mën a def sek moo tax yenn yi boo ko déggee nit di ko wax ne ko est-ce que kii sax mbaadu dafa soxore sëñ tubaa wala mu bëgg koo jaxase ak yàlla ba yàlla sax du maye nangu waaye ndax loolu la loolu mën naa am ah parce que am na nit ñoo xam ne soo leen diggee seen comportement ak li ñuy waxee da ngay tiit yow nga xam ne jànguñu d'abord xamuñu yàlla d'abord xamuñu itam sëñ Touba relation bi mu am ak yàlla. bu bu sérieux la boo xam ne moom dañ ko ko war di eh, man ma ngi koy respect sàmmal boppam tamit. wëlbati ko di ko ci dóor guddeeg bëccëg it nag dafa mel na yow da nga ko ko sooxre waaw loolu lay bëgg firi parce que aussi ñàkk xam nag ci la parce que nit ki tamit bu xamul ndax yoon tamit daan wax ne ko xamul jaayir bu réer ba noppi <laughs> dof kooku moom musiba la mooy tukkal àdduna te léeg-léeg dañu mel na ci la ñu ci la ñu ci la ñu toll euh, bu ko defee euh, loolu rek laay laay la la la la la la la bëggoon ñu jottali ñu ko ñu ci biti xam ne waxtu wu ne rek suñu xol ak ak sunu suñu sunu suñu sunu suñu suñu xel mi ngi ci ñoom mi ngi ci sunu raaw réew mi tamit itam ñoom itam bu ñu fàttee ci ñaan parce que nag yëf yi fépp la waaw suñu réew ñi ngi ci eh, xëy na ñu ngi ñaan yàlla bu mu egg foofu waaye fi mu egg ko su néew sax bu mu ko weesu te li ci nekk ko su néew yàlla dindi ko eh, waaye itam buñ buñu buñu bu ñu naagu li nga xam ne moom la autorité yi digle ñu di ko ñu di ñu ko def islam boo ko jàng boo ko déggee boo ci nekkee doo am problème parce que yàlla ci boppam wax na ne wax na ci bopp li ma wax léegi la ikraha fi diin wax na lu ne wax na ko ci nit ki xoo anfusakum aleykum lu ne wax na ko ci nit nit bu bu ne bu lee bu demee ba naan la mais fexeel ba fegal sa bopp sawara ak yàgg ak say nit xoo anfusakum wa aleykum naan sawara xam nga da xam beneen affaire la kon bu lay wax loolu mais dafa bëgg loo loo jublu lu lay lor nga fexe ba nga góorgóorlu ca la lam ca defal boppam nag bu boobaa yow sa yoon nekku ca waaye nekk na fi gën na fii lu état ay nit rek lañu ñi fi nekk ay ay nit lañu noo bokk ak ñoom lépp ne ci di ay jullit xam mais yàlla moo leen teg nattub lépp lu nekk ci réew ci ci mbooloo mi ñoom ñoo ko war a saytu mais buñ la ne nii lañ ko bëgg a saytoo mais lan moo des. waaye wax fee wax fi wax ja ñuy wax sax nga xam ne am na ci yuñ ci doon wax ci ginnaaw dugg fii mekk ku ko ci wax jëlal sa responsabilité mais bu ci dugal sëñ Touba nag hmm? waaye bu fekkee da ngaa ñemee saw say wax kay ah, waxal nga génne ko ci waaye bëgg jël sëgal bu ko defee ki ci xamul dara moom daal di bëgg ne Touba nangam nangam te moom sax loolu tamit nañ ko bàyyi xel nit ñi boo gisee am ma sàmba mu la ma demba di wax loo xam ne daf koo wax ci mel ne da koo wax ci turu sëñ Touba bala nga bala nga ko fel aw làmmiñ wala nga di ca wax boole ca ña ca bokk ña seen yoon nekkul xoolal kay wax ba xam kii ban nit la nga tontu ko mu yem ca waaye yow it lu yëngu ci nit koo xam ne xamul la muy wax dara nga daal di defe ne kooku yow itam nga mel ne moom dugal ca koo xam ne yoonam nekku ci mais kooku du nit hmm? kooku yooyu yëpp du ak du ak du nite euh, gëm-gëm. boo du du du yëfi caaxaan ku koy fooyee ku ne jàppal na rek hmm, hmm, du dëdul moom moom moo moo toll noona parce que euh, xel euh, mën naa rëy mën naa gudd mën naa xalaat waaye dem ba egg ci mën a xam nit kii ñaari nit am différence kii gëm bu baax kii bañ a gëm yaakaar naa ne euh, différence ci nit ñi eggul foofu kon waaye nag da ngay góorgóorlu ba yàlla fekk la ca waaye fokk yàlla dugal ci loxoom kon nag yàlla na ci yàlla dugal la loxoom ñu gëm te sax ci ngëm nga te muy dëgg nag waaw bañ a gëmantu parce que tamit nag waaw moo tax gi moo tax li rek ñu ngi ñaan yàlla rek noonu balaa yeeg wobaa yeeg ak maanaam épidémie bi ak ak ak ak ak pandémie bi yooyu yëpp yàlla dindi ko ni ko sëñ bi waxe euh, maanaam wax ne mu ngi mi ngi mi ngi yàlla na ko dàqal balaaya ak wal alwaba wal balaa kullaha anha yëpp tayyib surbaha wa aklaha nga xam ne dafa mel ne euh, lu mel ne épidémie bi ak ak pandémie bi ñuy wax ñaar yooyu yëpp sëñ bi tudd na ko ci ci ci wa ci waxam euh, bu ko defee mu ne tayib Euh, surbaha wa aklaha dafa mel ne kon xëy na mm, nit ñi ni ñuy surba ak maanaam naan ko ak lekk ko dafa mel ne kon wax ji ñuy <laughs> jël ay masque di ko dugg ak yooyu ak nuyoo bi nit ñi def ba euh, nga mën a nuyoo nit mu yore ko nga lekk loola dafa mel ne sëñ bi loolu dugal na ko ci baat yow ñaan gi mais ñaan la waaw nañ yem foofu bu buñ dugal ci di ci dugal luñ ci xamul ñaan na te ba mu ñaanee ba noppi def nañ ñaan yàlla maa ngi lay ñaan nga nangul ma li ma wax kooku dégagé na responsabilité waaw yow na nga bugg koo sëf nekkoon ko nee na nangam <laughs> loolu ku koy def it da nga ko layoog moom waaw <laughs> moo tax il faut ñu xam waaye tël tël farax farax ji rajax rajax ci waaraate boo xam ne xamoo jóge ci làng gi rek tëb jàng ñaari bayit mais kooku il faut ñu ñu bàyyi ko xel mbaa guddul euh, asalaamaaleykum wa rahmatulah kon ñoo ngi ñaan yàlla defal leen jàmm defal na ko ñun ñëpp def ko ci réew mi xool ba xam mën nañ ci jafe-jafe ci ba ci commencement ba xeex yi ak yi ñuy def naan jihaad ak baat yooyu mais euh, euh, ak ak naafeq am lu ne am mooy force soo ko dugalee nit ci affaire ngëm mën na leen a d'accord naa gëm na mais gëm ci biir nit ki lay nekk. waaw fekk mënoo dindi nit ki la ca biiram te loolu nit du ko mën def mënoo ne ko def nga ko wala defuloo ko moo tax diine daf daan wax ne laa ikraha fi diin qad tabayyana rushd min al lu baax a ngi ne lu bon a ngi nii kon bul forcer nit ci nga defloo ko ci biiram loo xam ne mënu ko caa def loolu moo tax euh, li ñu daan forcer li ñu daan forcer ci lu baree baree bare naa fekk ca la am naa fekk ñëw gën a garaaw sax ci weddi ndax mooy ki nga xam ne daf lay wan ne maag yow a ànd te yow kooku mën na laa fexeel te am pexeem ñaare dana dana néew loo loo ci lu ci nit mën a mucc ndax daf lay jekko euh, bu ko defee nag euh, lu mel noonu nag moom la nit ñu baax ñi yonent yi doon doxe Sëñ Tuubaa mi ñëw di doxe noonu moo tax toujours damay wax ne euh, nit ñi nañu def attention ci ci yenn wax yi Sëñ tubaa bu ko kenn dóor ci kaw yàlla waaw di Sëñ Tuubaa bëggul loolu waaw ndaxte nit koo xam ne dem na ba wax euh, ne euh, nafsi wa diini tuma ahli wal walad wa maskani lakk wa diyaatun abad c'est-à-dire sama lépp jox naa la ko yàlla même boo gisee sax yi muy bind ci wàllu euh, wàllu ñaan lu mel ne maslabul fawzeyni boo ko xoolee lu wax na ko ci wa maskani nangam nangam wan fil bala nu mu tuddati wala waba wan fil waba wal balaaya kullaha yooyu euh, nga gis ne kon même lu mu ci wax bu demee ba ca mujj ga def ne faqat daawatu ko fa ajib daawati maanaam def ne yàlla ñaan naa la nangu ko parce que yaa wax ne ku ñaan may la nga xam ne bëgg na rek bëgg bëgg a décharger wu ci bañ ne maane nangam wala léey am ndax ragal borom loolu yëpp daf koy invité ci ay waxam bu ko defee yow mi ne xamoo ci dara jàng tuuti jàng benn pëj wax tël nangam nee na woon fii dara te yow xooloo fa mu tàmbalee fa mu wax ak li mu ñaan boroomam mais yemal foofu boo ci yemee kay amul problème ndaxte alxuraan dafay wax ne nit ñi euh, euh, boo bañee wala tasubu lazina yad'uuna min duunillaah fa yasubu llaaha adwan bi ghayri ilmin kazaalika zayyana li kulli ummatin amalahum daf ne Euh, nit ki nga xam ne dafa am lu muy gisee yow la nga gisee nga jëmale ko ci yàlla moom jëmale ko ci yàlla wala moo xam fa mu jëmale ak fa nga jëmale mais yow daal jàpp nga ne li nga li nga gis neen la mu ne boo ko boo ko boo ko boo ko doyadelee la mu ne mais dalay doyadel li nga nekk te la nga nekk bu fekkente ne lu dëgg la mu doyadil la ko kon lor nga ko parce que lor lor nga ko mu tax wax loo xam ne bari nañuy wax ci sëñ tubaa loo xam ne mais du ñoom sëñ tubaa sëñ tubaa du kenn duñu ko bañ parce que sëñ Touba nit ku bëgg yàlla <laughs> mënoo loo ko bañ mais ka cay wax te waru caa wax te xamu ca di ci génne boppam di ca waxaale fi boppam kooku moo indi problème bi boo yemee fi mu yem ñaan na lii yàlla na ko na ko moo xam yemal ca la wax ñaan na ko boo amee sa bopp te nag lu ci bari dañ dul xool ni muy waxee problème bi daf ci am jégg teel rek di matt dam ne mel sëñ Tuubaa kenn mënu ko gën koo dégg arab waaw xam na balaa xam xam xam aroot xam mantiq xam bayaat xam na lu ne ci waxin donc kenn du ko sërxal ci wax mais yow mi ko jàng nag boo jàngul lu bari xamoo ci dara dégg ñu wër la rek ne la jaafe man yàlla bu ñu lay jox sax as tuut nga daal di defe na yow fi mu ne jeex na boroom xam-xam nga mais sax du lu yëf caaxaan conférence boroom xam-xam moo koy def mais waaraate nag boo ko dee defee da ngay dajale ay yëf di ko ca def loolee nag boo ko dee dajale yi te seetal yi nga xam wala nga xam fa nga ci mën a yem waaye kuñ ci taxaw wër la nga ne da ngay def conférence da ngay dugg fii wax loo xam ne du sax conférence parce que conférence du loolu conférence borom xam-xam a koy def da koy def ay ay ay ay règle ay norme bu ko defee loolu lépp nañ ci bàyyi bàyyi xel euh, bu ko defee yéen ñi ci bitti tamit ngeen muñ ngeen muñ ni noo ngi fii lu ngeen am ci métti rek am nan ko parce que noo yéen noo ngi fii ci suñu dëkk bii ñu itam ni ngi ci yooyu yàlla nañu ci yàlla musal waaye yéen yàlla na ci yàlla musal su musal ci it waa réew ma seen diggante yi tamit foofu xam nañ ne am na jafe-jafe am ndax am nañ ñoo xam ne seenu liggéey amul woon solo dañ doon xëy di jaay comme niñ koy waxee rek bés bu set la ñuy am fa lañ koy amee buñ toogee mënuñoo toog mukk fukki fan nangam wala ñaari fan ñett te fekk amul lu dugg ci ñoom te fekk loolu nekkul euh, coono ci ñoom loolu kon yéen ñi nga xam ne dangeen amoon ay liggéey hmm, euh, euh, na ngeen ak ak ak ñi ko amul yëpp te tanente na ngeen organiser wu fexe ba li ngeen daan def seeni daayira ak yëpp ndax sa daayira def naa taawoon rek la alal bi wa taqwa maanaam dimbalante moo ko tax a jóg xëy na lu ca rax leneen la waaye loolu moo ko tax a jóg kon loolu nga xam ne yéen ñëpp dangeen ko daan jéem a am di ci defante lu baax di ci nangam lu ngeen ci am dimbale leen ko ñu nekk foofu ci seen dëkk yooyu moo xam amerique la moo xam Italie la moo xam Espagne la moo xam Belgique la wala France fu man di doon ak al fu mu mën di doon ci dëkk yooyu na ngeen fexe ba am lu ngeen di am ko su néew ña fa nekk te nga xam ne bu ñu masaan xëy ñaari fan bu ñu amul kii du ñu am lu lekk ngeen fexe organiser wu di leen ca di leen ca di leen ca di leen ca dimbale bu ko defee loolu soo amee rek. loolu mën naa am li ci des nag ñi nga ne ñoo fa yàlla def ñu fa wàññi ko fa ah, na ngeen ci na ngeen dal rek lu ci yàlla defal rek lu ngeen ko ndax yaakaar naa ne eh, kilifa yi buñ ci amee benn pexe danañ danañ ci danañ danañ ci danañ ci danañ ci danañ ci danañ ci jàpp eh, loolu daal mooy mooy mooy li nga xam ne jàpp nañ ne mooy ñu jéem a xool Euh, jéem a muñ te bàyyi coow li ñaan euh, jaamu yàlla te def ko ngir yàlla ñaan nag ca ñaan ndax moom kooku tamit jullit daf koy war di def te itam dogu it nag ci ne euh, lépp lu nekkit bu ëllëgee bu nu yàlla dimbalewaatee tamit nu bañ a sàggan daan di fàtte na loolu kat amoon na daal di wëlbati ko te loolu lépp suñu borom dañu koo wax dinu ko junju te loolu sax dafa daanaka boo ko doon seet ci nit ak sax du ngor waaw ñaan nit doxal nit mu defal la boo ma defalee lii nga defal ko ko ba noppi mu bëtti ko lan lam la waxoon defu ko loolu du ngor sax te moo na euh, euh, dañuy wax ne mais euh, dañuy jàpp ne hmm, yàlla mooy yàlla kenn du moroom du moroomam du kenn waaye nag ak mbaadoola moom léeg-léeg nit fexe ba bañ koo seq kenn sax baaxul waaye seq ko yàlla it baaxul waaw waaw mu lu ne nga mën koo wax loo defe ne boo ko defee nii rek day da ngay defee ne moom xamul la ngay def nga def ko boo ci bu dee ci nga kërëb kërëb bi def nangam boo noppee ci jaamu nga bu la defee la nga loolu mais sax ci nit yàlla dunoo digal ñu war ko jaamu amul damay wax toujours ne mm, fay gim ñu ci dugg sax moo ko moo moo moom la engagé parce que warul warul warul moo ko warul boppam mais ñun waruñu ko sax teg waruñu ci duggoon ndax moo nu bind. boo ko jaamoo moo lay moo lay may kàttan gi moo lay jox loxo moo lay jox tànk moo lay jox nangam mais kooku bu la naan danaa la ca fay yow itam nag bul bul baadoo la waaw ko rek bu ko defee baax na bu ko deful nga tax waaye boo ko ci bëggee safañal nag <laughs> la bu ko defee yooyu yëpp nañ muy sëñ Touba mii tamit damay wax ne bu leen ko bu ñu ko dóor ci kaw yàlla neexu ko waaw ndax euh, boo gisee euh, alxuraan mas na ci yàlla mas na ci waxante ak yonent yàlla Isa waaw daf ko ne a anta qulta linnaasi ittaxizuuni wa ummiya ilaahayni ndax daf ko ne mais yow ndax danga wax ne nit ñi nañ ma jaam maag sama yaay ñu ngeen te ba te ba yàlla Isa tiit ne ko wax loolu ndax tas wax ca wax in kunta qultuhu faqad alimta ba ay ji daan kon yàlla xam na ne Isa wax ko mais daf ko doon seet nga xam ne sëñ Tuubaa daana def fii ci njaareem bu ma saan toog ba génn ci nit ñi di leen waxtaan ak ñoom nga gis ku jóg daanu daal di daanu daanu yàlla nangam wax mais bu buñ ko mësaan wax ba bëgg koo méngaleeg yàlla day jógal boppam du wax sax nit ñi jàpp leen ko déedéet moom mooy jógal boppam jàpp koo ko song ko daaneel ko ci suuf jël suuf dugal ci gi sax gémmiñ gi pour wan leen ni leen ñi bu leen ma booleeg yàlla bu leen ma jaxase parce que nit ñi bëggatuñu ràmbaajale ak yàlla capable nañ di tout waaw lu ne mën nañ ko ndax luñ mën a def sek moo tax yenn yi boo ko déggee nit di ko wax ne ko est-ce que kii sax mbaadu dafa soxore sëñ Touba wala mu bëgg koo jaxase ak yàlla ba yàlla sax du maye nangu waaye ndax loolu la loolu leen mën naa am ah parce que am na nit ñoo xam ne soo leen diggee seen comportement ak li ñuy waxee da ngay tiit yow nga xam ne jànguñu d'abord xamuñu yàlla d'abord xamuñu itam sëñ Touba relation bi mu am ak yàlla bu bu sérieux la boo xam ne moom dañ ko ko war di eh, man ma ngi koy respect sàmmal boppam tamit wëlbatiku di ko ci dóor guddeeg bëccëg it nag dafa mel na yow danga ko ko sooxare waaw loolu lay bëgg firi parce que aussi ñàkk xam nag ci la parce que nit ki tamit bu xamul ndax yonent bi daan wax ne ki xamul jaayir bu réer ba noppi <laughs> dof kooku moom musiba la mooy tukkal àdduna te léeg-léeg dañ mel na ci la ñu ci la ñu ci la ñu toll euh, bu ko defee euh, loolu rek laay laa la la la bëggoon ñu jottali ko ñu ci biti xam ne waxtu wu ne rek suñu xol ak ak sunu suñu sunu sunu suñu suñu suñu xel mi ngi ci ñoom mi ngi ci sunu raaw réew mi tamit nu itam ñoom itam bu ñu fàtte ci ñaan parce que nag yëf yi fépp la waaw suñu réew ñu ngi ci eh, xëy na ñu ngi ñaan yàlla bu mu egg foofu waaye fi mu egg ko su néew sax bu mu ko weesu te li ci nekk ko su néew yàlla dindi ko eh, waaye itam buñ buñu buñu bu ñu naagu li nga xam ne moom la autorité yi digle ñu di ko ñu di ñu ko def islam boo ko jàng boo ko déggee boo ci nekkee doo am problème parce que yàlla ci boppam wax na ne wax na ci bo li ma wax léegi la ikraha fi diin wax na lu ne wax na ko ci nit ki xoo anfusakum alaykum lu ne wax na ko ci nit nit bu bu ne bu lee bu demee ba naan la mais fexeel ba fegal sa bopp sawara ak sa yàgg ak say nit xoo anfusakum wa ahlikum naan sawara xam nga da xam beneen affaire la kon bu lay wax loolu mais dafa bëgg loo loo jublut lu lay lor nga fexe ba nga góorgóorlu ca la ci lam ca defal boppam nag bu boobaa yow sa yoon nekku ca waaye nekk na fi génn na fi lu état ay nit rek lañu ñi fi nekk ay ay nit lañu noo bokk ak ñoom lépp na ci di ay jullit xam mais yàlla moo leen teg nattub lépp lu nekk ci réew ci ci mbooloo mi ñoom ñoo ko war a sayto mais buñ la ne nii lañ ko bëgg a saytoo mais lan moo des. Hmm? waaye wax fee wax fi wax ja ñuy wax sax nga xam ne am na ci yuñ ci doon wax ci ginnaaw dugg fii mekk ku ko ci wax jëlal sa responsabilité mais bu ci dugal sëñ Touba nag waaye bu fekkee da ngaa ñemee saw say wax kay ah waxal nga génne ko ci waaye bëgg jël sëgal bu defee ki ci xamul dara moom daa di bëgg ne Touba mu nangam nangam te moom sax loolu tamit nañ ko bàyyi xel nit ñi boo gisee am ma sàmba mu la ma demba di wax loo xam ne daf koo wax ci mel ne da koo wax ci turu sëñ Touba bala nga bala nga ko fil aw làmmiñ wala nga di ca wax boole ca ña ca bugg ña seen yoon nekkul xoolal kay wax xam kii ban nit la nga tontu ko mu yem ca waaye yow lu yëngu ci nit koo xam ne xamul la muy wax dara nga daal di defe ne kooku yow nga mel ne moom dugal ca koo xam ne yoonam nekku ci mais du nit hmm? kooku yooyu yëpp du ak du ak du nite euh, gëm-gëm Euh, euh, boo du du du yëfi caaxaan ku koy fooyee ku ne jàppal na rek hmm, hmm, euh, du dëdul moom moom moo moo toll noona parce que xel mën naa rëy mën naa gudd mën naa xalaat waaye dem ba egg ci mën a xam nit kii ñaari nit am différence kii gëm bu baax kii bañ a gëm yaakaar naa ne différence ci nit ñi eggul foofu kon waaye nag dangay ngay góorgóorlu ba yàlla fekk la ca waaye fokk yàlla dugal ci loxoom kon nag yàlla na ci yàlla dugal la loxoom ñu gëm te sax ci ngëm nga te muy dëgg nag waaw bañ a gëmantu parce que tamit nag waaw moo tax gi moo tax li rek ñu ngi ñaan yàlla rek noonu balaa yeeg woobaa yeeg ak maanaam épidémie bi ak ak ak ak ak pandémie bi yooyu yëpp yàlla dindi ko ni ko sëñ bi waxe euh, maanaam wax ne mu ngi mi ngi mu ngi yàlla na ko dàqal balaaya ak wal wabaa wal balaa kullaha anha wa tayyib surbaha wa aklaha nga xam ne dafa mel ne euh, lu mel ne épidémie bi ak pandémie bi ñuy wax ñaar yooyu yëpp sëñ bi tudd na ko ci ci ci waxam euh, bu ko defee mu ne yëpp Euh, surbaha wa aklaha dafa mel ne kon xëy na mm, nit ñi ni ñuy ne surba ak maanaam naan ko ak lekk ko dafa mel ne kon wax ji ñuy <laughs> jël ay masque di ko dugg ak yooyu ak nuyoo bi nit ñi def ba euh, nga mën a nuyoo nit mu yore ko nga lekk loola dafa mel ne sëñ bi loolu lépp dugal na ko ci baat yow ñaan gi mais ñaan la waaw nañ yem foofu bu buñ dugal ci di ci dugal luñ ci xamul ñaan na te ba mu ñaanal ba noppi def nañ ñaan yàlla maa ngi lay ñaan nga nangul ma li ma wax kon. dégager na responsabilité waaw yow na nga bëgg koo sëf ne ko nee na nangam <laughs> loolu ku koy def it ko layoog moom waaw <laughs> moo tax il faut ñu xam waaye tël tël farax farax ji rajax rajax ci waaraate boo xam ne xamoo jóge ci làng gi rek tëb jàng ñaari bayit mais kooku il faut ñu ñu bàyyi ko xel. Euh, pour ngir pour jeexal daal kon ñu ñaan rek li ci sëñ bi waxoon. muy wax ne wanfil euh, wabaa wal balaaya kullaha anha wa tayib shurbaha wa aklaha bu bu wax bu ñaan gu am solo la gu sëñ bi wax ndax balaa euh, ak ak waba dañoo niroo épidémie ak ak ak ak ak pandémie bi am ñaari baat yooyu li indi waba mooy pandémie balaay mooy sëñ bi nee na loolu yàlla nañ ko dàqal kon yàlla nañu ko yàlla dàqal Euh, te nag fexe it ba nu bañ koo naan bañ koo lekk xam nga boo xoolee naan ak lekk man liggéey docteur yi di digle nga masque wu surbaha man ne su ko firee loolu wa ak laha boo seen nuyoo bi nuy waxit waxu ma ne man nag damay traduire damay wax bu leen ne sëñ Tuubaa nee na nag ma na ngeen ñu dimbali ci yu demee noonu dangeen di wax ni mu wax waaw bu ko defee seen jaan wàcc waaye bu leen ci duggul seen yëfi bopp nee na woon nangam bu loolu rek laa ci doon wax ñi ngi ñaanal nag autorité yi nga xam ne bu ñu déggee ku bu ñu jëlatee gis ci koo xam ne wax na dudd noonu ñu jàpp la noonu ñu ngi leen di ñaanal may bañ bi nag ñu defee ne waaye am na ci ñoo xam ne moom kilifa yi ñi ngi xam ne ñi may wax xam nañ leen da nga leen di ñaanal yàlla fay <laughs> fay leen sëñ Touba parce que ñi yori làmmiñ di wax ñu di leen woote bu ñu leen woo ñu génn ca lañu waxoon ñooñu tamit ñu ngi leen ci sant ci loolu sëñ Touba lañ ko defal <laughs>